اليوم coordinateur la waaw d'accord may coordonné Ahmad Lo ma ko wax Ahmad Lo moom maa dëkk nii. est-ce que toog nga ne. Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Merci beaucoup. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Di santal Yàlla

ngeen may ñu ñu jox de gi coordonnateur départemental muy Amadou Lo mi nga xamante ne liggéeyam kenn amul lu ñu ciy naatale ñu jox ko may ko

la grande coalition yi askan wi ànd ci Pastef les patriotes ñuy def sëñ bi def ñuy def démonstration de force wan gën a dëkk bi bàyyi kenn moomu ko wan gën a dëkk bi jaay doole ñu nekk geex wan dëkk bi na leen nii lañ ko fas yéene jàppee ba le 25 février loolu la président Ousmane Sonko pare. ah. ci kaw bi macha allah dina wax dina wax Sénégal yëpp dina dégg ñëpp tuuma lakk tuuma. fas yéenaa jàppee bala 25 février ñu and ak Ousmane Sonko yóbbu ko pale kon la jeunesse consciente debout nañ leen wane suñu bopp démonstration ba ngi ni fii Mbàkke la te Mbàkke wala woon na boppam département